tous lu yëngu lu nekk la ko yëngal ma ko ëpp doole les jeunes dames de Khombole ñu fas yéene sargal jigéen ju man góor kookan la ñu ni Ajaratu Mbaru Dieng yaayu Alice Diagne présidente départementale des femmes secretaire général bi d'IPES ah mbokki Khombole jug leen seen doome gi doonu jigéen ju man góor ki nga xamante ni yàgg naa jàppale jigéen ki nga xamante ni yàgg naa sigil jigéen looloo waral les jeunes dames de Khombole takku ni kii foo jaar ñu delloo ko njukkal ndax yàgg naa sigil jigéen yàgg naa sigil doomu Khombole xombal ko koy ajaxatu mbaru Dieng jàpp leen le samedi 12 juillet 2021 ca terrain basket bu aneen bu xombal ñu ngi woo mbokki xombal yépp rawatina jigéen ñi nga xamante ni tubarkàlla yàgg dañoo dagg bu mu gàccee jigéen ñu am jom yi mën DJ Ouz fekk leen ma xombal la 12 juin ndax ajaratu mbaru Dieng la ñuy sargal te ku sargal mbaru Dieng sargal nga jigéen